acca gaay mi ngi noonu combat Petit Lo Petit Lo Petit Lo kan la am Petit Lo kan la am. Israël aca mi ngi noonu Petit Lo Petit Lo ak Israël Petit ak Israël nee naa la combat bi démarré na eh, Israël weex na Petit na Petit Petit Lo ah, Petit Lo Israël Petit Lo Petit Lo tem reko Petit Lo tem reko Petit Lo ni Petit Lo tem reko di mere hee Petit Lo Israël Israël daan na fekk na ko fa Petit Lo tem Petit kor na ko Petit Lo Israël Petit Lo Israël nee naa la Israël daanu na Petit Lo Petit Lo di dugg na ko jàpp na ko Petit Lo dugg na jàpp Petit Lo plaqué na ko Petit Lo teemu dee Petit Lo teemu dee ko Petit Lo plaqué na ko Petit Lo plaqué na ko mu ngi ci suuf Petit Lo Petit Lo Petit Lo Israël Petit Lo Israël Petit Lo Israël Petit Lo Israël Petit Lo ngi door Petit Lo ngi door Petit Lo ngi door Petit Lo ngi door Petit Lo mi ngi door Petit Lo mi ngi door Israël Petit Lo Petit Lo ngi door Petit ngi door Petit Lo ngi door Petit Lo ne Petit Lo Israël a lan la tey mu neex nee naa li neex na ba noppi fii si Abidjan ngeen ànd si Khalil borom wasaare nee naa la Petit Lo Petit mu neex Petit Lo Petit Lo ngi door Petit Lo Petit Lo Petit Lo ngi dóor Petit Lo ngi yaay naa na dee sénégalais yaay naa na dee sénégalais yaay naa na dee Petit Lo Israël Petit Lo Israël Petit Lo eh, eh, eh. woyaay yow li neex na di eh ay eh, tey neex ay mel neex Petit Lo Israël Petit Lo Israël Patro ngi door Patro ngi door Patro Israël Patro Israël Patro ngi door eh, eh. wop pop pop pop pop loolu waxu làmbaloog la nee naa la Patro ak Israël eh temps bi lay tee mu jeex 2 17 2 18 des na de Patro Israël Patro Israël kutu nañ ko kutu nañ Patro Patro Israël Patro le petit roi et Israël et eh, petit lo Israël petit lo Israël petit lo Israël petit lo Israël petit lo Israël petit lo Israël petit lo ngi dóor petit lo ngi soq waa petit lo ku ko dee nga soq petit lo ngi soq eh petit lo ngi soq petit lo dañ ko croiser kott ko. kottu nañ Petit Lo Petit Lo le petit roi ici à Abidjan hôtel Olomo Petit Lo teem rey ko nee naa la Petit teem rey ko Petit Lo le petit roi ak Israël Petit Lo mi ngi dóor Petit Lo ngi soq nee naa la Petit Lo ngi dóor Petit Lo ngi dóor kii da xoolal Petit Lo lim def si yoonu si Petit Lo lim def mi ngi koy noq kii mi ngi koy roqos kii temps bi lay téem a coulé temps cinquante et un cinquante deux quarante neuf Petit Lo Israël Petit Lo Israël Petit da ko daal di songu dóor ko plaqué Petit Lo Israël Petit Lo Israël Israël jàpp Islo Petirael Islo Petilo Petilo Israël Petilo Israël sonn nañ sonn nañ Petilo Israël Petilo Israël nee naa leen combat bi nee na ba noppi 19 18 17 16 Petilo Israël ba léegi Israël ngi si suuf Petilo ak Israël ngeen ancien Khalil en direct fii si Abidjan hôtel Onomo ngeen ànd see xali ak wasaare nee naa leen tapote leen te ngeen abonné temps écoulé premier round bi jeex na premier round bi jeex na Petit Lo ak Israël premier round bàyyi noonu Petit Lo ak Israël premier round bàyyi noonu nee naa ko mbir mi neex na ba noppi Serigne Babou Petit Lo ak Israël Petit Lo da ko plaqué fii la ko plaqué daal di koy dóor. woyaay premier round woy woyaay sénégalais tey ñu rey ivoirien sénégalais tey ñu rey ivoirien Alboury weere quoi ah bu ñëpp amee ndam moom am Aujourd'hui, on aca Petit Lo Israël Petit Lo daa sonn a tànk bi aca arbitre bi sifflé waat si diggante Petit ak ki nga xam ne moo di Israël fii Abidjan hôtel Olimo Petit Lo Israël Israël mi ngi weq Petit Lo mi ak Israël Petit ak Israël Israël mi ngi weq Israël mi ngi weq Israël mi ngi weq Petit Lo nee la Petit Lo Wekki Petit ak Israël Petit Lo ak Israël Petit ak Israël Petit Lo ak Israël la deuxième round baa ngi noonu Petit Lo ak Israël Petit Lo ak Israël premier combat de MMA ici à Abidjan avec Petit Lo et Israël Dori Petit Lo Wekki Petit Lo dugg na ko mbot na ko Petit Lo mbot ngi daw Israël a ngi daw Petit Lo Petit Lo ak Israël Wekki dinaa ko Petit Lo Wekki Petit Lo kii jàpp ko def ko mbot sóoraaleel weq yi Petit Lo Petit Lo dugg na ko Petit Lo dugg na ko ah Petit Lo Petit Lo sóoraaleel weq yi Petit Lo Petit Lo sóoraaleel weq yi Petit Lo Petit Lo ak Israël Petit Lo ak Israël Petit Lo ak Israël Petit Lo sóoraaleel loolu Petit Lo sóoraaleel loolu Petit Lo sóoraaleel loolu Petit Lo Petit Lo sóoraaleel weq yi Petit Lo sóoraaleel weq yi premier combat de Petit Lo ici fi nga xam ne moo di Abidjan Petit Lo sóoraale weq yi oh Petit ak Israël fii si Abidjan hôtel Onomo ak Israël danaa leen ñu ngi bëree te maanaam bëre sax ñu ngi box Petit Lo sóoraaleel weqi Petit Lo Petit Lo sóoraaleel weqi Petit Lo Petit Lo ak Israël Petit Lo ak Israël Petit Lo ak Israël Petit Lo ak Israël Petit Lo ak Israël Petit Lo ak Israël Petit Lo ak Israël deuxième round Petit Lo ak Israël Petit Lo sóoraaleel weq waaye ana sama dàll bi Petit Lo ak Israël Petit Lo dóoraat ko mbot Petit Lo Petit Lo moytul kuuy Petit ak Israël deuxième round Petit ak Israël Petit Lo ma weq yi Petit mi ngi ay déplacement de gauche droite ak ki nga moo di Israël Petit Lo da lay nax de Petit Lo da de da lay nax de da lay nax ak Israël Petit Lo da lay jox tànk bi da jox loxo bi jox la tànk bi Petit Lo Petit Lo Petit Lo bi Petit Lo ko. Petit Lo ak Israël Petit ak Israël Petit Lo ak Israël Petit ak Israël Petit ngi ci case bi boobu ba léegi deuxième round baa ngi waaj a jeex Petit Lo sóoraaleel tànki Petit Lo naa leen Sénégal lañ jógee Petit loolu dañoo war a yóbbu Sénégal Petit Lo ma loolu Petit Lo Petit Lo Israël Petit bi Petit Lo ajal ma sa bi Petit Lo Petit Lo Petit Lo Israël premier combat de MMA fii si Abidjan de Petit loolu Petit Lo sóoraale loolu Petit Lo deuxième round baa ngi noonu Petit Lo Petit Lo et Israël Petit Lo loolu Petit Lo temps coulé deuxième round baa ngi noonu deuxième round baa ngi noonu daa vide mom laay changé. aca troisième round baa ngi noonu di waaj jeex nee naa la round bàyyi noonu di waaj jeex troisième round bàyyi noonu aca troisième round bi arbitre bi sifflé na round si Petit Lo ak ki nga xam ne moo système mu tànk lay andi Petit Lo moytu loolu Petit Lo Petit Lo loolu Petit bi mooy troisième round Petit Lo naa la jeex na ba pare Petit Lo jeex na ba pare Petit Lo moytul ma loolu Petit Lo Petit Lo moytul loolu Petit Lo ak ki nga xamante ne ni moom moo di Israël Petit ak Israël Petit Lo ak Israël Petit Lo moytul loolu Petit Petit Lo sénégalais nee na nga jàpp ki Petit Lo Petit Lo sénégalais nga jàpp ko Petit Lo Petit Lo nee nga songu Petit Lo Petit Lo kon songal Petit Lo Petit songu Petit Lo Petit songu Petit Lo ak Israël nee naa la Petit Lo ak Israël troisième round baa noonu Petit Lo fi nga dugg Petit Lo ak Israël Petit ate mi ngi noonu Petit Lo dugg na Israël arrière na Petit Lo ak Israël Petit Lo motu tànk bi Petit Lo war nga motu ak Israël man damaa war dem defi kii sax MMA laa war dem defi man MMA ma ne Petit Lo ak Israël fii si Wassare Lamb ngeen ànd see Petit ak Israël Petit Lo moytul da lay nax tànk bi la bëgg andi Petit Lo moytul tànk bi la bëgg andi Petit Lo Petit ak Israël Petit Lo ak Israël Petit Lo Petit Lo da nga war a song Petit def avantage Petit Lo comme ça nga ni nga ko defee woon Petit Lo moytul ma tànk Israël bi Petit Lo Petit Lo ma loolu Petit Lo jàpp ko Petit Lo Petit Lo moytul ma loolu Petit Lo Petit Lo moytul ma tànk Petit Lo Petit Lo moytul ma bi Petit Lo Petit Lo ma tànk bi Petit Lo Petit Lo songal Petit ma Israël yóbbu ko si Arabia Petit ma Israël Petit Lo Patilo Israël Patilo et Israël Patilo deux minutes Patilo Israël Patilo le petit roi Patilo Patilo kiit Patilo def ko dara Patilo Patilo moytul tànki Patilo Patilo moytul tànki Patilo Bien joué Petit Lo bien joué Petit Lo Petit Lo Israël Petit Lo Israël Petit Lo Israël Petit Lo ngi door Petit Lo yellu na Petit Lo daan na ko Petit Lo daan na ko Petit Lo teem rey ko Petit Lo teem rey ko Petit Lo Petit Lo teem rey ko Petit Lo Israël nee naa la Petit Lo Israël Israël si suuf Israël si suuf Petit Lo Petit Lo Petit Lo Israël Petit Lo Petit Lo Israël Petit Lo Israël Petit Lo Petit Lo temps bi jeex na Petit Lo une minute moo des Petit Lo Israël Petit Lo dugal a gauche Petit Lo dugal a gauche Petit Lo Petit Lo dugal a gauche Petit Lo Petit Lo dugal a gauche Petit Lo Petit Lo dooral Petit Lo Petit Lo dóoral Petit Lo dóoral Petit Lo dóoral Petit Lo dóoral Petit Lo dóoral Petit Lo temps bi jeex na 30 Petit Lo dóoral temps bi Petit Lo 10 minutes Petit Lo door na gauche Petit Lo dugal na gauche Petit Lo Petit Lo dooral Petit Lo Petit Lo dooral Petit bi jeex na eh, bi jeex na Petit Lo ak Israël temps bi jeex na bi jeex mi aca sëñ baabu mbir yaa ngi noonu sëñ baabu nee naa leen bu ma kontaanee fii rek da ngeen war a kontaan yéen tamit

kan premier match Sénégal Côte d'Ivoire 3 pour Sénégal 0 pour Côte d'Ivoire

Sois padois. ngi joxe li nga xam ne moo di victoire bi gars yi. su gën a Petit Lo ak Israël. Israël gagné na Petit Lo. Israël gagné na Petit daal ne gagné ki nga xam ne naa leen deuxième défaite de Petit deuxième défaite au Sénégal fii nga xam ne moo di Sénégal deuxième défaite bàyyi noonu aca Petit Lo mi ngi noonu